Ah, mbokk internet Actubuzz ah, ñu amati mbekk ak contacté toujours ne la dikay fas yéene jàkkaarloo ki xamante ne mooy Mass ñu waxtaan ak moom tuuti ah, ci lu bare bëree bari mais Mass tey bëgg naa nag balaa mën a bàyyi nga présenté wu am na loo jot a bind ci li nga xamante mooy yonent bi sallallahu alayhi wa tamit ñu daal ci dugg tuuti daal ci laal ah tey liggéey boobu tamit di la bàyyi nga nuyu ak mbokk internetu Actubuzz yi waaw Actubuzz maa ngi leen di ziar di leen béggee di béggee waa Sénégal di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu waa yëpp di ñaanal Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér ak bépp xalifa général ak bépp jullit ak bépp doomu aadama mu nekk Sénégal di yow di ñaan Ukraine ak euh, Russie guerre ba fa am yàlla suñu borom def jàmm ba àdduna bi ñëpp nekkaat ci jàmm suñu borom sotti xéwal ci àdduna bi daal jàmm jàmm yàlla yëpp mën cee jariñu daal waaw comme ni ko suñ Bamba waxee iram jami alwara yaaxar yéen a daxaar waaw yërëm lépp loo xam te daal mi ngi ci jaww mi ngi ci suuf seeg jaww jeeg lépp daal yaa ma gën a xam dafa mel ne dëkk yooyu sax bu ñu dañ koy yëg parce que bu xoolee ñun bele bi ñuy dundeek lépp côté boobu lay jóge te actuellement nii ka boo xoolee fan yi xaw na métti si réew mi lool ci ko di dund waaw métti na trop gisoo temps yi def naa ci benn vidéo ba gars yi dama TikTok ak di ma WhatsApp <laughs> fu ne ñu dugal ma fa parce que li ma doon wax mooy li nga xamante ni mooy la xew si dëkk bi parce que euh, ñun sunu Sénégal dañu bëri wax yàlla dañoo dogal maa ngi jégul mais dañu bëri wax parce que dañ dugg loo xam seen parce que buñu demee gis ay sénégalais naan nañ taxaw ñu jox leen avion ñu dem xeexal Ukraine ci réew moo xam yow loo lekk sax mënoo ko gérer da <laughs> ah, commencé di ci bëri wax ko nekk naan voilà nañu wutal avion loolu taxoon ma génn wax ne carrément nañ arrêté yooyu parce que ñun guerre bi suñu yoon nekku ci bu dee ay julli lente li ñuy woote ko nañ ñaan yàlla mi nga xam ne mooy saafara mu saafara ko parce que borom saay-saay bu bëri doole boo newee doole da nga koy moytu te riche waa ji gis nga ko dafa bëri doole koo xam Amérique dafa jënd glace France jënd glace <laughs> dëkk yi ñoom ñoo fi daan sot sotoo kenn ñi mu ko laal ñun réew mu daan xam amuñ sax lu ñu lekk ba nga dugg si problème jaam lu si suñu yoon suñu yoon nekku ci voilà ah, mas damay ñëw ci tuuti ci li nga xamante ne waaw ci yonent bi ah nga bind si bind bu am solo tagg ko tagg bu am solo tamit ah liggéey boobu noonu fam la toll ak fii pour lan moo tax boobu nga téye ko présenté woo ko sénégalais yi waaw wax nga dëgg yàgg na moom depuis daaw laa ko bindoon denc ko ba ren sama xel mi na ma daal foog mu génnee ko quoi parce que moo tax bëgg nañ ci def benn son boo xam sax dañ koy gàttandoo gars yi ci koor bi moo tax ñu bind ci yonent bi salaahu salaam téere bu tudd xidmati nabi Muhammad rasulullah salaahu salaam da ngeen ma bett sax waaye kon dama ko doon indi pour wanaat ko sénégale ñu jigéen koo xam daal ma ciy laal sa message nag bépp artiste boo xamante ni musicien wala koo xam koo mën di doon rek nga xam tagg yonent bi salaa salaam intéressé na la nga ñëw ñu jox la téere bi nga xool li nga la ca intéressé nga jël ko noo ko mën a voyé pour mu neex pour àdduna bi yëpp jot ci daal nga ñëw jël ko parce que loolu lañ ci loolu mooñ ci intérêt loolu lañ ci bëgg parce que yonent gis nañu ñu ko li ñuy ŋàññi dafa bëri ñu koy xas day bëri te kooku doon ku ñu war a xas wala ku ñu war a ŋàññi ñun tamit ñu liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne wane ne kii ku am valeur la kii du ku ñuy saaga kii du ku ñuy xas nit la koo xamante ni yàlla daf ko dañu ko dañ bénéfice la pour ñun ndax bu fi amul woon musiba am moo tax nag foog ñu wan àdduna bi ne kii du ku ñu war a xas kii du ku ñu war a saaga looloo tax ñu bind ci moom te képp koo xam ne int téere bi intérêt Sénégal boo ñu contacter incha allah di ci jot quoi. kon disponible pour pour ah, pour bu ñëwee daal ko ci dimbali. du ma ko ci laaj du ma ci laaj kenn dërëm yàlla xam ne dañ la koy jox rek. waaw nga xool yow lu mu addi yonent bi moom nu may intéressé nga nga noonu. loolu rek lañ ci jublu bëgguñ ci leneen mais soxlawuñ ci sax ku ñu ciy woo dañuy. pour naan ñu ma fay leen ak yooyu déedéet liñ ci bëgg mooy na message bi jàll

juum bu rëy parce que man dama yaakaar ne xeexal nit aajowul saaga aajowul xase aajowul wax ju ñaaw parce que yaakaar naa ne Sidi Diop ak Wally Seck yëpp ay sénégalais lañ ay doomu réew mi lañ te bu fekkee ne réew mi daf ñu ñor lépp lu ñuy mën a def rek mën nañ ko mën a def mu rafet tey jii mais dañuy gis ne chaque fois xalifa bu tayee mu xas Wally mu tagg Wally xas Sidi Diop bu suba waatee mu xasaat Sidi tagg Wally mm. jàpp naa ne nit moom da nga da nga war a mel nenn ni quoi mm. même bu gisee ci wàll naka sudul noonu am na neneen nu mu ko mën a waxee mu rafet parce que ñun ñëpp ay julli lañ te diine laabirante la diine laabirante la moo tax boo gisee naka sudul noonu war naa mën a wax ne ah waalikat bu ma sañoon nga def nii wala nga defee ko nii mais paa xas ak saaga ak di dugg ci vie privée ak da ngaa takk takku suuf ak da ngaa takk takku kaw yooyu yëpp amul sens parce que li gën a am importance mooy nit la muy dund moom la concerné hmm. te ñun bu dee ay loolu l'islam sax da la ko tere di lu ñu ti nit lan lay def ak la ah man sa vie privée concerné wu ma man tam sama vie privée concerné ma da nga gis ay émission yu tudd ay ay acti buzz luy buzz man xaw ma buzz li ma la ko waxee woon rek baase bu fatt taraj moo ma gënal buzz nañ nañ bàyyi yëfu ñàkk fayda yooyu nit ki la muy dund moom la concerné mais diw doo xam ne diw diw diw lay génnal ministre bi jël na diw wala député bi jël na diw amul benn sens moo tax li may wax ci côté Khalifa ak dix mille euh, six mille problème mooy Wally Seck daal yow laay waxal en tant que Baye Fall comme yow nga jéggal leen te waaw nga jéggal leen ngir jëmu Cheikh Ibra daal man daal loolu laay ñaan waaw donte nag metti na trop xuloo bi bëri na coow li waaye yow daal acte boobu daal ñu ngi la koy ñaan nga jéggal leen li laay wurasool yi te yàlla rek tax waaw man daal loolu laa koy ñaan muy moom muy 6000 problème te ñoom it bu ñu génnee li laay wurasool ñu seetaat seen bopp parce que nit mën nga avancer def li ngay bëgg a def te doo déranger kenn parce que musique géej la ku ci nekk mën nga sànni sa mbaal doo jot sa morom dara waali si réew mi lëkk Sidi Diop si réew mi la dëkk ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañ kon war na mën a rafet mais xasante beeg ŋàññante beeg di def ay son di clashante mën na ñàkk parce que ku ci nekk am nga sa public te soo wootee sa public dana la fekk yaa ngi gagné sa wërsëg kii di gagné wërsëgam kenn mënut a yàqal sa morom dara yaa ngi dégg ndax wërsëg yàlla nee na maa ko yor te maa koy joxe wa maa min daabatin fil dafa leer kon nit ki li nga war a am bu jàpp ne doomu aadama bi moo la koy xañ wala kee moo la koy may nit ku ci nekk li nga gëm mooy na nga dem liggéey góorgóorlu fa nga nekk yàlla jàppale la man loolu laa gëm quoi mais gëmuma nga yaakaar ne yow nit kii kat xaaral ma jëm ko faxasal pour mën a jàll wala ma faxasal kii parce que kenn mënul tee kenn. Mhm. li nga war a am suñu borom bind na ko ba pare te kenn mënu la ko teree jot. kon showbiz bi encore une fois may waxaat nañ ko rafetal nañ ko rafetal te man bu ma sañoon Wally Seck ak Sidy Diop sax dañuy def album. parce que boo gisee américains yi bu ñuy def tendance ci musique di clashante benn ñu toog benn moment ñu ne xaaral ñu def album. wala ñu def ñun dañ koy def pour bañante parce que xamuñu milieu showbiz nan lay demee. gis nga ko kaane yi dañuy xasante di defante lu ne mais ñoom dañ koy teg ci business. ñu ne ñaar ñi dañu am problème ñu xëy xëy ñoom ñaar ñu génnee album. yaa ngi dégg mhm. mu jural leen dara mais ñun dañ koy def pour bañante parce que xamuñu milieu showbiz man daal fii laa far fii moo baax. waaw man it fee laa baax feneen baaxul kii xamul dara di moo dàqawee mais amul sens nañ liggéey mu rafet mhm. man li may ñaan daal na affaire yi nañ ko teg ci jàmm ak salaam képp kuy xeexal sa artiste nga jege ko di ko bindal texte créer ko ay son yu bees ay àdduna bi gis nga ne musique bi doxee man de ku si jege woon dinaa la bindal texte ba daw parce que man loolu laa gëm man damay bañ sax ba damay bind ay ko maye parce que loolu la quoi mais xeexal nit ki ba pare mënoo ko bindal benn texte amul sens te artiste dafa soxla ay texte yu riche yoo xam da koy jox parce que du li liggéey du pour moom mais ñi mu koy jox la parce que kii déglu la man artiste laa mais li may bind public bi may déglu ñooñu la war a concerner moo tax toujours booy bind da nga leen a war a bàyyi xel. di bind loo xam ñoom bu ñu ko paree danañ ci gis seen bopp. parce que artiste moomul yaa ngi sonn sa du tëdd bu guddi di xëy di bind ay textes yi nga fanaan si studio di enregistré dafa metti te loolu lépp li nga si jublu mooy bégal askan wi. mais nag nga def sama ba ko ne da ko a daw. dafa metti nit dafa war a daw loolu. di bind loo xamante ni di nga yaakaar ne lii boo ko ci gis seen bop man daal loolu laa leen di ñaan ñu Sidi Diop Wally Seck ñu joxante loxo naan nekkat benn parce que gis nga bërki Demba Ndiaye bi coon génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm Sidi dafa ñëw jaale sa mu rafet lool. yow matagul six a ñu commencé war kalaasante bi mais loolu ñaaw na trop. gëmuñu ko li ñuy def gëmuñu ko wax dëgg yàlla gëmuñu ko. parce que moom Sidi waroon naa am lu muy def sax mu xool ah diggante Papa Thion bërki démb la génn na def naa son rendre ko hommage. nga war pare wëlbati ko bëgg a xas doomam munoo bëgg ginaar ba pare bañ ay cuujam wala bañ ay nenam munul nekk waaw moom waroon na lépp lu tax ci Thione Seck rek waroon na ko téye ak fukki loxoom ak juróom parce que paa bi génn na àdduna dafa war a rafet. li ñuy def est-ce que du tardé côté musique Sénégal du tardé parce que Sénégal boo xoolee li muy réeré ñi fi nekk label yi fi nekk bariwul. Sénégal musique bi moo fi amul benn njëriñ xam nga boobaa taxawoon na fi ne rap Sénégal comme le rap polonais. gars yi di mer. parce que dañu créé wul dara pour jaay ko ci biti suñu musique Sénégal la yem ana ay Davido ana ay Wizkid tey ñu ngi niveau international ñoom ak kaane adduna bi yëpp leen di déglu parce que dañuy créer yeneen musique mais ñun suñu musique Sénégal la yem ñun suñu musique musique locale la ñu bëgg ko ñu bañ ko loolu moo am amu ci benn artiste à part Youssou Ndour fi gis mu ne day dem Bercy tëgg kan wax ma ci kenn benn waal sekk fi dafa nga gars yi ko doon xeex bëgguñu woon mu réussir naan fees naag feesul mais loolu ñun suñu defet la Wally Seck bu demee Bercy képp kuy sénégalais nga nekk foofu mu jege la da nga ci war a xar sa tànk tubay parce que Wally Seck bu réussir représenté wul boppam Sénégal lay foofu suba benn ngaa ko leen dem wala benn dib dund gis wala beneen rapport dem wala Pape Diouf dem wala keneen sénégalais ñoo war a dem supporter ji feesal foofu ñu xam ne suñu musique kat am na importance niveau international mais dañ ko dul def li ñuy def mooy toog fii di dàggasante di xuloo di wa dàq way di wa dàq way léegi ñu jël vidéo jox ko xale jigéen ñu koy sénaab di gaarowaale ku ci nekk genre musique boobu nga xam ne moo xew léegi waaw musique buzz bi musique tiktok nga xam ne amul benn njariñ benn njariñ amu ko yaa ngi dégg nañ jëm a créer musique boo xam dinañ mën a jaay ci biti suñu niveau international suñu rappeurs yi mën a mën a concurrence rapport rappeurs français yi wala américain yi fa ay buubaa taxawee wala ay la fuite ah nga dem taxaw pour mën a concurrence ak ñoom ba gis tey lu mel ni daara ji famille yi li muy def génn commencé jaay musique bi foofu lañ leen di xaar ñu bañ a yem tamit ci bi di créer yeneen musique boo xam niveau international bi Wally Seck war na ko mën a def Sidy Diop war na ko mën a def ba bu déwénee ñu ne Sidy Diop dem na grand euh, fële Bercy wala wala wala Wally Seck dem na Bercy sénégalais yëpp taxaw supporter leen ñu ñu ñu jëmmal suñu sunu suñu doomu réew parce que tey benn sénégalais bu jógee fii dem Europe représenté wul boppam Sénégal lay représenté parce que drapeau Sénégal moo moo équipe nationale ñoo yem il faut que ñu bàyyi xel loolu jéem a créer musique boo xam dañ koy jaay pour adduna bi mën ci jariñu mais duñ ko def dañ fi nekk di dàggasan di di xuloo musique bi yem ci du biir si musicien bu nekk milliardaire c'est un problème ci gis nga américain yi benn album ngay génn wala single nekk milliardaire parce que day nekk international adduna bi yëpp di ko cons plateforme boo ko dugal da ngay jaay mais ñun suñ musique ci jigéen la yem TikTok bii demul fenn ñu ne fi di xuloo ko dàggasante di jaay wax bu bëri maa fi man te tojoo fenn boo génnee ci biti boo laajee kuy doon ñu la xamuñu ko parce que jéem a ñëw liggéey ci suñu musique loolu kese moo mooy wax bi nañ jéem a concurrence ak ñële mais pas ñuy concurrence ci biir te suñu armes yi ni ñu am ñu valoriser ko lu mel ay guitare ay ay ay balafon ay jëmbe ay sabar tama yooyu yëpp war nañ ci mën a créer ay mélodies yoo xamante dinañ ko mën a jaay ñu xam ne rythme mi fu mu ne bëxër ñu